السلام عليكم ورحمة الله وكي نقول لنا يدي لن زيار لن بالو حق نان برم سبحان تعالى بولن جگا حديث تايب لفا عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة صحيح مسلم xadis bi ki ko nettali mooy jaabir ibnu abdillah mu wax ne dégg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne seesu iblis mu ngi nekk ci biir géej gi nee na foofu lay toog di yabal ndawam yi ñiy fitnaal nit ñi ku la ca gën a bari fitna rek ku la ca ëppale la muy fitnaal nit ñi rek xamal ne kooku mooy ki ko gën a jege xadis mu ngi saxiixu muslim maanaam cheytaane iblis mel na ne yonent bi dañu jàngal sallallahu alayhi moom mu ngi placé wu ci biir géej léegi nag fan la placé wu ci biir géej bi dabt borom xam-xam euh, def nañ ci ay ay rek ay nattale rek yoo xam ne indi nañ ko ci daal am na benn géej gu ñuy wax baxru cheytaan boo xam ni mu ngi nekk ci côté Japon foofu la gën a jege jàpp Chine géej gu doy waar la nga xam ni boo demee am na ci yow day day continuer ba xaw a am na ci boo xam ne day làmb diggante bii may wax ni euh, dañ koy faral di wax sax dañ koy tuddee musallatu tinniin dinañ ko koy tuddee am benn barab bu fa nekk boo xam ni euh, day bari ay avion yuy faral di wàcc di daanu foofu am na ci beneen zone boo xam ni mu ngi nekk ci côté Amérique boobu nag moo gën a siw ñu koy wax musallatu euh, Barmuda la arab yi di wax mooy triangle euh, Bermuda la ko tubaab yi di tuddee barab bu doy waar la ci biir géej nga xam ne bateau du ko jege du avion du dara ñu wax ne foofu la cheytaane géej giñ naan fa la yoon sallallahu alayhi wasallam naan mu ngi ci biir géej ñu ne la placé waaw ñuy ëpp ci borom xam-xam yi loolu la sukkandiku daal am na ci ñuy wax wax sax ne triangle boobu moom mooy jàpp Euh, ñi nga xamante ne ñooy framason yi seen symbole bi nga xam moom la ñuy symboliser mooy triangle boobu foofu lañ ko jëlee ci barab boobu nga xamante ni mooy fi cheytaane sitio dëggantaan ci géej allahu alam ala kulli xaalin yàlla rek mooy ki xam waaye cheytaane daal mu ngi ci biir ndox mi moom waaw mu ngi ci biir géej moo tax fépp fépp fu fu nit dëkk rek ci géej rek day bëri ay jinneek ñoom seen ndax jinne yi def ci bëri ñoo xamante ay ndaw seytaane la ñuy doon ay agresseur yoo xam ñuy faral di fëq nit ñi di leen sonal bu defee li ñuy mën a musal ci seytaane du kenn ku dul yàlla nan la yàlla musalee ci seytaane mooy dañuy mustu ci yàlla mu musal ñu ci seytaane ñiy góorgóorlu ci sax lu baax sax ci lu baax di jàng alquran di def zikrul ilahi di zikar di tudd yàlla di fàttali ko borom subhanahu wa taala maytu yu ban te xeex ak suñu bakkan buñ ko defee seytaane duñu mën a dara lu leer di gën a ci ñun suñu puissance di gën a am doole cheytaane euh, di ñu gën a mën a sori di ñu gën a mën a ragal waaye lu ñuy gën a faible ci wàllu leer rek cheytaane di ñu gën a jege di gën a am doole ci ñun bu ko defee kon lu ñu gën a mën a yokk leer yokk leer boobu mooy lan moo def effort jaamu yàlla di jaamu yàlla te bu ñu xeeb ni jaamu yàlla toujours di moytu li ñuy wàññi loolu fekk ñu ngi koy ñu ngi ci sax rek cheytaane dañuy sori day dem ba dootuñu ñeme sax feek ñu ngi wàññeeku rek cheytaane di gën a ñeme di ñu jege bu yàggee mu dem ba commencé dañuy ërtal ba dootuñu faale loolu mooy li tënk xadis yàlla yàlla defal ñu dégg ak topp qul qawli hada wa astaghfirullah azim li wa lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi